xibaar yi ñoo ngi ci ànd ak waa Bio Afrique. dalay may kàttan néew kàttan na ko tax a jóg néew kàttan gi mooy lan mooy yow ku góor gi jëlal ma kuddu suba bu ngoonee nga jël kuddu boo bëggee seq sa soxna nga xaar 15 minutes dinga nga seq ak moom une heure de temps te doo sonn boo amee hémorroïde da koy faj biteel bi mooy traitement bi international partout dans le monde foo nekk mën nañ la ko livrer jëlal kudd. nga naan soo naanee nga xaar 15 minutes boo xaaree 15 minutes nga seqal sa soxna dinga nga sëy ba sonn sëya sëy ba doyal te doo sonn dinga sëy une heure de temps doo sonn doo palpité wu tayit faj gi mu lay faj ci biir raxas sa deret ba mu set lii lu yéemee ngi ci biir amul benn effet secondaire gàncax yépp diggante burkina la ñaame jëlal ma nga diw lan ngay diw awra bi awra ban awra góor bu fekkee ne sa awra dafa am ñas-ñas wala muy dellu jëlal nga jël dina ko guddal dina ko dijjal tayit bu amee feebar da koy faj lépp defaale nañ ko ci gàncax yi ci biir amul benn effet secondaire lan ngay diw awra bi awra góor diwal ma suba diwal nga ma ngoon te bàyyi leen jàpp seen awra yi di ko diw ba pare jël silib bu dang nga sol ko loolu da koy delloowaat yow da ngay traité te une semaine may jëlal nga diw nga sol sa caleçon. laata ñuy door xibaar yi ñoo ngi wéy ba léegi di leen présenté application bi tudd SofaScore di yëngu ci wàllu tàggat yaram rawatina football match yi nga xam ne day daw en direct. képp koo xamante ni bëggoo dara ump la ca téléchargé ko ndax dala cay jox xibaar yu wér wóor waaye programme yi soxal football it kenn demul mu des ca waaye tamit xibaar bu soxal tàggat yaram rawatina football application bi di SofaScore da ciy ñëw képp koo xam ne nag téléchargé nga ko jaaree ko ci application bi ñu def ci commentaire yi di nga jàppale King Ouse Ngary TV ndax dafa lëkkaloo ak King Ouse Ngary TV ngir askan wi dara bañ leen a ump ci football bi muy Sofascore kon daw leen ngeen téléchargé ko mën a dimbale King Ouse Ngary TV ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bi tudd ñancu Sadio Mané moom nag jamono ji mi ngi ci forme li ko waral nag bokk na ci coppite yi nga xam ne club boobee amal nañu ko ndax dañoo soppi coach Pioli moo leen di tàggat jamono jii ba fa Pioli ñëwee ak tey jii nag ñancoo saajo maane mi ngi doxal ndax ñeenti match yi mu mujj a jongante dugal na ca ñaari bit amal ca ñetti passe décisive kon Pioli dafa ñëw foofee ca Al Nasser soppi ñancoo Sadio maane ndax jamono ji mi ngi ci forme kon nañu ko ñaanal mu wëyal ci jaloore joojee moom ñancoo saajo maane ñu jugee ci ñancoo Sadio maane ak jaloore joojee mu nekkee te di ko ñaanal mu wëyal ci dem ca waa Liverpool ñoom suba incha allah dañuy jàkkaarloo ak Bologna tey jii nag bi ñuy tàggatu am nañu gan ci seen entraînement ba muy Darwin Nunes ak Andy Robertson ñaar ñooñee bokk nañu tey jii ci entraînement ba kon mën naa am suba ñu bokk ci match bi war a dox ci diggante bolo Bologna ak Liverpool bu dee ñi may waaja lim moom bokk ñu tey jii ca entraînement ba kon seenu bokk ca match boobee lu ñuy seetaat lay doon muy Federico Chiesa ak jogo jota ñoom ñaar bokkuñu ci entrainement bi kon nag seenu bokku ca match boobee dara wóoragu ci xibaar boobu Sky Sport moo ko xamle ñu jugee ci Darwin Nunes ak xabaaram bu neex waaye Liverpool googee ñu ko génn gum bu ñu sukkandikoo ci l'équipe waa Liverpool woo nañu doomu Portugal bi tudd Anthony Lopez nekk ci lion waaye Lyon googee nag nekkatu fa partant maanaam nekkatul gardien numéro un waa Liverpool li ñu bëgg moo di mu dem ci seenu club jàppale leen waaye doomu Portugal bi dafa gantal li mu xamle moo di club bu mu mën di dem li mu bëgg moo di nekk gardien numéro un kon noppeegul jamono ji ngir dem ca Liverpool moom nag moo doon départ titulaire ci lion waaye jamono ji départatul titulaire jamono ji nag waa Liverpool a ngi koy bàyyi xel bu baax bu ñu sukkandikoo ci l'équipe ñu jugee ci Anthony Lopez ak bëgg-bëgg boobee waa Liverpool am ci moom jël doomu Norvège bi tudd Martin Odegaard moom nag jamono ji dafa am ab blessure waaye wax na lu leer équipe nationale bu Norvège ne leen weeru octobre bii ñu dëgmal li ma leen di ñaan moo di bu leen ma woo ci équipe nationale bi ndax dama am blessure naam bu ma tanee ci diggante bi mën naa bañ nekk à cent pour cent kon li ma leen di ñaan moo di seenub liste bu leen ma ca boole ci match yi ñu dëgmal ci weeru octobre bi loolee la Odegaard xamal njiitu équipe nationale bu Norvège bu ñu sukkandikoo ci Sport TV de ñu jugee ci Martin Odegaard ak i bëgg-bëggam dem ca waa Barcelone ñoom nag ñoo ngi bàyyi xel bu baax doomu Suède bi tudd Victor Gyökeres nekk ca Sporting bu Portugal gone gii nag club yi ko bëgg bari nañu lool Barça ci la bokk waaye Sport mi ngi artu waa Barcelone ne leen su ngeen bëggee gone gi de faaw ngeen xar ci seen tànk tubooy ndax kujje gi dafa bari lool maanaam club yi ko bëgg dañoo bari lool bokk na ci Arsenal Juventus ak yeneen club yu bari kon Barcelone su ko bëggee faaw mu jëmbat fulla ngir mën ko xaatimal contrat gone gii di Victor Gyökeres nag li muy def mën na ko lool te ma ngi koy wane ca Sporting bu Portugal xibaar boobu esport moo ko xamle ñu jógee ci Victor Gyökeres ak bàyyi xel googee Barcelone di ko bàyyi xel waaye club boobee di Barcelone du ñu leen bàyyee gum tey jii bu 19h jotee dañuy jàkkaarloo ak Young Boys liste ba nag génn na comme ni ñu leen ko waxee ca biir noppi na ngir doxal ca match boobee ginnaaw bi mu toogee cinq mois maanaam juróomi weer duggul ci terrain football li ko waraloon moo di ab blessure jamono jii nag tane na mi ngi ci groupe bi tey jii noppi na ngir jàppale Hansi ci kanamu waa Young Boys bu 19h jotee ñu jugee ci waa Barcelone ak seenu xabaar bu neex jël doomu France bii di Kylian Mbappé moom nag dafa amoon blessure ñu ne dina toog ñetti ayubés maanaam trois semaines door a mën a dugg ci terrain football tàkkal dëgg da caa am maanaam mbir mu doy waar daf ca am ndax wér na te noppi na à cent pour cent ànd na ak waa Real de Madrid dem ci riiwu France suba Real de Madrid Lille lay jàkkaar lool Kylian Mbappé mën naa am mu départ titulaire wala su départul titulaire tamit mën naa am bu match bi doxee ba ci kanam mu dugg ca jàppale goney Carlo Ancelotti yi moom Kylian Mbappé xibaar boobu Relevo moo ko xamle ñu jugee ci Kylian mbappe ak xabaaram bu neex jël doomu Espagne bi tudd Andrés Iniesta moom nag ba léegi mi ngi football waaye balaa yàgg dina tekki godaas yi bu ñu sukkandiku ci Relevo talaata bii ñu dëgmal maanaam bisub tey bii bu dellusee doomu Espagne bi def jaloore ca Barcelone def ko ca équipe nationale bu Espagne dina tekki ay godaasam maanaam dina bàyyi football bu ñu yeggee ci la huit dina siiwal xamal àdduna gépp ne moom numéro huitu Barcelone bi nekkoon fa ay jamono toj ko dina bàyyi football moom nag nekkatul xale ndax am na quarante waaye nee na dina bàyyi football loolee la relevo xamle